Radio Futur Media ñu ngi fi ci medina ci dakar rue 15 angle corniche immeuble El Hadj ñu tambalé xibaar yi acteur culturel yi doon amalam ndaje demb seen digg ak ministre bi ñu dénk biir réew mi euh, Félix Antoine Diome euh, dogalab tere yi nag jëm ci bépp ak dajalo euh, ndajem demb mi taxul ak yëkkati am ci moo waral ñoom acteur culturel yi seen ab coalition ne dox bi ñu namoon tey wala toogaanu ñaxtu ngeen baal ma sitin dàq nañ ko ba beneen maanaam ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ba tey décembre dañu ci ànd ak kenn ci ñoom coalition des acteurs culturels du Sénégal soxna ngone Ndour ñu teewlu ko ak soxna Aminata Ba. ministre de l'intérieur daf ñu xamal ne que ne suñu ñaxtu yépp dégg nañ ko parce que bu ñu fiy jógee ñun ñëpp dañu yakaron ne que ne ah, y compris ñom que li ñi def rek mom moy que ne alléger les mesures restrictives yu ñu defoon mais malheureusement bi ñu xëyee ñun ñëpp constaté que ne cas yi dafa doublé cas grave yi yokku ba mu am ay décès donc loolu tamit dafa nek ben mbir mo xamné ne que ne dafa xaw doy war touti ci réew mi mu nekk deuxième vague bo xamné dañ ko constater nous avons exposer la population donc nous avons compromis au jour le jour suivons la situation bi bu une tendance baissière automatiquement ils vont nous autoriser à travailler Nous déposer 72 heures nous matul comptabilisé ñun comptabiliser jour de dépôt le jour où marche bi l'interdiction de rassemblement comme nous avons des légalistes nous respecter les délais de 72 heures pour nous faire def sunu sitting le mercredi 23 décembre donc euh, tout le monde est désolé nous on a été vraiment douche froide la par rapport à ça mais comme aussi maladie de daf fi nekk mu donc tamit on a dit que dès lors qu'il y a une fenêtre qui est ouverte d'échange et de discussion nous nañu suivre situation dès que mu wàcc ils peuvent nous permettre de travailler toute la communauté artistique dañu mobiliser woon nous pouvons mobiliser même les artistes qui sont dans les régions ñi mënul ñëw Dakar il s'est dit au même moment que euh, Dakar di di def sitting on tamit dañ koy def région donc nous avons dit que sitting bi reporter pour juste déposer une demande en bonne et due forme pour respecter les 72 heures. syndicat gros porteur du Sénégal le grève bu nu wutalul àpp li 25 décembre lay li waral douanier yi len sonal 8 ci euh, syndicat gros porteur demb ci conférence de presse tay ci rapport bu iti initiative bi jëm ci leral lepp lu yëngu ci industrie euh, jëm ci walu souf ci Sénégal euh, ci atam 2019 xew wi jëm ci rapport euh, ci secrétaire général de la présidence de la République tay ci leneen ci xibaar ak RFM jëm ci wàllu ñu nu teg loxo ca département bu Saraya fukk ak juróom-benni doomu aadama yoo ni ay doomu Sénégal la ña des Burkina ak Mali ñu nu fa teg loxo ndax gasu mburus ak wër gi ci anam yu dëppoowul ak yoon fekk nañ ak ci doomu Sénégal yooyu Burkina ak yu Mali lu jëm ci ñeenti moto pompe groupe électrogène ñaari pel carré ak lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom essence keneen ku nu teg loxo ab commerçant la bu doon yëngu ci jaayum euh, fowukaay gune ñu ne yoo xamante dafa def liquide di ndox mu xeetoog alcool euh, di lu nu tere moo waral ak teg loxoom ci wàllu kon noonee nga xamante ni doxale na ko kilifa yi ci wàll jënd ak njaay ne da koo dugal ci réew mi ci anam yoo xamante ni euh, yu lalu ci frot la moo waral it ñu daal di ko jàllale ci kanamu procureur alxamis tey jii leeral yi directeur commerce intérieur Oumar jàllook ak Salif Salif xam ne ni dañu koy jaay xale yi pour ñu koy fooye waaye fooykaay yooyu ndekete dafa am ndox bu nekk ci biir te ndox bi boo ko xoolee garse yoo xam ne ni dañu koy jaay xale yi pour ñu koy fooye waaye fooykaay yooyu ndekete dafa am ndox bu nekk ci biir te bi boo ko xoolee dafay xeeñ euh, day mel ni parfum fruit mais dafay xeeñ aussi parfum wu sàngara ñun bi ñu jotee xibaar bi ñu def investigation yi ba dem fekk produit bi te ñu ko déclaré ñu jël ko yóbbu ko laboratoire analyser ko analyser ne ne effectivement ndox boobu noonu nekk ci fooykaayu xale yooyu ndox bi am na alcool boo xam ne ni dafa nekk à six degré gannaaw gis nañu loolu nag ki nga xamante ni moom moo ko jaay produit bi moom la ñëw fekk si fii ci Dakar jël jàpp ko pour jébbal ko yoon ndaxte moom dimi muy dugal si produit bi bu fekkee ni moom moo ko si dugal amul autorisation pour dugal ko maanaam déclaré wu ko gannaaw déclaré wu ko te ñun yëguñu fenn gisuñu fenn foo xam ne ni moom am na autorisation pour jaay alcool yoon dafa ne ku mel noonu boo ko jàppee da nga koy tëj jàpp ko jébbal ko procureur parce que foofu amatul possibilité pour nga mën a def leneen lu dul loolu moo waral ñu jël ko defal ko procédure bi demander réquisition procureur pour que ñu mën ko ko jébbal ñu dem diwaanu euh, Matam euh, ci xaniru féexlo foofe lu fo yéeme euh, way juri ndongo yoo xam ne danoo ñëw jëli seeni doom ca l'école bu yóbbu ca kër ya li ko waral mooy xibaar yu wérul yu daw ca dëkk ba ni dañ fa commencé ñakke goo xamante ni élèves yi rek lañu diir ca dara amu ca Matam Ali ñoo njàng amatul ci école élémentaire dëkk Ranérou Ferlo waajuru ndongo yi ñoo beddeeku seen kër daw wutali l'école ba daal di bett jàngalekat yi yore woon cré ku nekk jàpp sa loxo doom ñibbi ak moom mu di ab njàqare gu rëy lool ci jàngalekat yi nga xamante ni mbir mi mbetteel gu rëy la tombe ci seen kaw nde xamuñu la ko waral ba ñu gestoo mbir mi nag waajuru ndongo yi nee nañu dañoo yëg ni am na ay ñàkk yi ñu indi ngir ñàkk seen doom ya ca école ba te ñoom ànduñu si ci loolee kon tax na ba ñu daal di jokkoog Demba Fall moom mooy njiitalu association parents d'élèves bu dëkkub Ranérou Ferlo. damaa xëyoon dem hôpital ñu téléphoné ma ñu a ma am na ñu ñëw école di ñàkk xale ma dem di daje ay xale di d'élève bu dëkkub Ranérou Ferlo damaa xëyoon dem hôpital ñu ma na ñu ñëw école di daw di ñibbi ci ci dëkk bi ma laaj xale yi ñu ne ma dañu dëgg ne am na ñu ñëw ci école bi di ñàkk ay xale ñun tam ñu gën di daw ma continué di dem ma daje ak Yoro Makono de village ñu ne ma yow yaay président yaa ci war a wax ma dem foofu ma fekk fa directeur ma laaj leen ku nekk mu ne moom yëgu ko dañu gis ne rek gën daw ma laaj leen man na leen est gis nga dem ci oto dugg ci école bi nañu dem ci inspecteur ñu tëdd foofu ñu waxtaan su dul loolu élèves yi suba duñu xëy pour jàng luñ rek ci ñàkk yi ci man ci suma xam xam nga ne tey euh, portable a chef yi dañuy génne am na ay ñi keregaan ñi di dem di ñàkk ay xale bu ñu ñàkkee xale yi dañuy dem di ay xibaar yu teguwul fenn ci gox bi nga xamante ni amul benn campagne de vaccination jamono yi bu ñuy déroulé xanaa sax foofee ca Ranérou ci yenn kilifa yi ñu jot jokkool xamal nañu ne fii mu ne sax ci waajtaayu campagne boobu nguur gi nas ngir xeex ak yenn feebar yi la ñuy waajal te campagne boobu la sax door gudd mu nekkoon sa naataango Aliou Bandel ñaa fi ci loolu Matam pour RFM jërëjëf Ali Bandel ñu waxtaanee campagne njaayam gerte mi ca diwaanu Saloum foofee téeméeri téeméeri camion yu daw wutali ca këru diw gi di Copéol loolee ginnaaw bi nga xamante ni am na bloqué gunu bloqué gerte gi daa jéggi euh, yóbbu euh, bitim réew chinois yi kon jënd tunu Copéol googee nag euh, ci gis-gisu ñenn ci jaaykati gerte ni ñoo gën na nañu jëndee waa Sonacos waaye it ñii di dawalkati camion yi ñoom ñu ngi mer ba fut ndax ab yàggaay ci xaar bi laata ñuy yebbi gerte gi Ibrahima Diame. depuis bi Sinoa yi banque loxo ne dootul jënd gerte ndax blocage bi ñu def ci exportation yi kon ci la kamion yi daal di tourné kon wutal si usine bi la ñuy duppee Copéwol ay téeméeri téeméeri camion lañu fekk ci buntu bi ñenn ñi def nañ fi ay fan loolu nag neexul dara ñi di dawalkat yi nga xamante ni nee nañ tàmbali nañ di xaddi ci xaar bi. waxu nañ àll bi yëpp ba gerte gi ñëw waaye ni ñu war a liggéey liggéeyuñu liggéey bi dafa yeex liggéey bi dafa yeex trop. daanaka man dimanche laa ñëw te leer na dinaa fi am semaine dimanche laa ñëw ci guddi leer ma ni semaine dinaa ko fi am kaw yooyu dañ fee dajaloo si parce que daanaka usine bi rek moo fi jël moo fi wàcce ci buntu usine bi ngay toll di seen benn montagne gerte ouvrier ya nekk ci kaw booba jamono ñoom conducteur yi ñu ngi dajaloo ci buntu bi di xaar ñenn yi fii ñu fanaan nee nan dépense yi ñu ngi leen bëgg a rey xam nga tey fi toll nii boo nga fi nekkee ak sa apprenti euh, bit bu set nga war a rationné daanaka boo wecce ko 5000 francs mu jeex xam nga loolu itam arrangé wuñu ñun camion yi bu ñu sañoon tey fi toll nii liggéey bi gaaw wala yeneen usine yu ubbi kon ñaata fan ngeen fi nar a def par exemple da fi am une semaine wala lu ko man tay xam nga fiñ ñu toll man leen di la fi ñew tay yaakaaro mané ne fi kenn bi mom danaa ci décharge xam nga lolu itam déjà problème la waaw bu ñu sañoon daal fi ñu affaire bi situation bi changé affaire bi liggéey bi mën a gaaw waaw kan ah, ci oto yi la ñuy fanaan de fii la ñuy fanaan amuñu fa amuñu fa taxaw bu yàgg bi nga xamanteni nak nag camion yaa ngi ko fiy def té ñu genn di fi bëri tax na yi ragal prix gerte gi gën wacc Ibrahima Badiane moo jiite fédération des paysans du bassin arachidien ki borom gerté gi mëna fi def auto bi mën na fi def 20 jours ñaar fukki fan te bu ko fi defee béykat bi fay obligé tok di xaar te loolu dafa risque très ci bon impayé ak situation bo xamné dana jafé ci monde rural bi. fi mu toll nii nag COPEOL collecté na gum lu mat juróomi junni tonnes ak lu weesu tuti genwal daanaka bes bu yalla sak dana wàcce lu mat fanweer wala fanwer ak juromi camion kilo gerte gi nak mu ngi koy jëndé jamono ci trois 320 francs CFA Ibrahima Diame Kaolack radio Futurs média Ibrahima jërëjëf këru kurang gi tere dalloo jumtukaay yu bees di centrale électrique ca malikunda bu yëpp yembee nag mënees na yaakaar wàññite ci njëgu courant bi njiitu kër gee ko ni xa waxee Mademba Bitèye démb la ko dalloo réceptionné juróom machine électrique ngir centrale électrique ca malikunda euh, valeuru milliard wala téeméer téeméer ak benn ci ay milliards Oumar mbaw ab centrale électrique bu rëy dina am ca malikunda di xamle directeur général bu Central bu muccu ayib buy tax dekk tax yi di am courant di xamlé ma demb bi tay dañu ñëwoon tay fi ni xol si machine yi nga xamné mom lañ indi pour central bu bes bu ñuy wara défar defar central bi sax construction bi commencé na parce que partie génie civil bi yépp paré nañ ko légui nak moteur yi dañu ñëw ni benn moteur bi dem na. mu dess fi juroom benn moteur yi nga xamante ni mom lañ wara yobbu et que légui bu gaz bi ñëwé nga xamné c'est un programme important pour Senelec ak Sénégal ñu wax programme gaz du power dina fekk suñu machines yëpp nga xam ne moom lañ jore si parc bi mun a pare ba nga xam ne bu gaz bi ñëwee rek dinañ ko mun a utiliser. biñ ko taxawalee ba pare nag njëgu facture yi dina wàññeeku bu baax a baax di xamle directeur général bu Sénélec. premier point bi mooy il fallait que ñu jox nit ñi courant bu doy ñu ngi ci amélioré wu léegi lu ñu am si capacité doy na léegi beneen étape bi nag mooy que ni ñu fexe ba wàññi njëg yi. yooyu nag bu ngeen gisee programme bu toll nii si loolu lay bokk nga xamante ne nii bu ñu ñëwee am ay machines yu am doole yu dëgër yu économique coût yu ñuy defaree courant bi dina woy gën a wàññeeku te loolu bu soobee yàlla dinañ ko mën a delloo si consommateur juróom-ñaari machine yu jéggi dayo yooyu lu ëpp téeméeri milliards ci suñuy xaalis la dikkee Senelec. RFM tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu seen maa ngi dellu di la fay Alaaji Assane Gueye ñu dal di ko door rek wàllu football ak championnat yi ci biti réew championnat bu Angleterre. niki ki nak nag ni Liverpool mom dal dina foqati place bu njëkk bi ci Tottenham mi nga xamanteni sax mom la doon dajal niki ki ndax ñom ñoo daal di am ndam ñaari bal eh, ci benn seen bit ko ko dugal nak modi Mohamed Salah but victoire bi kiko ko dugal moo di Brésil bi eh, di eh, Firmino gannaaw lol nak ñom fi mu toll nii daal nañu raw li tolloo ko ñetti poñ ñi nga xamanteni dal ñoo di wa Tottenham Sam Santo moom moo féetee si ñetteelu place bi Arsenal mom niki ki dafa dal di match nul un but partout diggam ak ñi di wa Sam Santo seen bitu égalisation ko ko dugal modi seen capitaine capitaine Donitan itam Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang eh, jàpp leen eh, Arsenal dafa daldi di arrêté li nga xamné dal daal moo hémorragie ndax dañoo tegle eh, ñetti défaite ci première ligue yi yeneen Everton mom dafa fekki Leicester ci dëkkam daldi di ko ñaari bal ci dara Leeds United daldi mu ci am ndam Yulia juroomi bal ci ñaar diggam ak ñi nga xamné ñoo di waa Newcastle Crystal Palace ak West Ham United dañoo daldi match nul Crystal Palace fofu le chef Kouyaté nek daldi ne joué ba match bi jeex Brighton ak Fulham ñoom itam dañoo daldi match nul zéro but partout championnat bu Espagne FC Barcelone démb dal dina am ndam ci diggam ak ñii di waa Real Sociedad ñaari bal la ci benn mu mel ni ki ndam googu li nga xamante ni ñoom am nañ ko dafa daal di arrangé euh, ñaari wu jëm yi di Atlético Madrid ak Real de Madrid ndax ñoom ñaar dañoo daal di féetee jamono gi euh, ci place bu njëkk bi maanaam euh, ñoo di leader ñoom waa Atlético Madrid tollu ci poñ ak Real Sociedad ak itam ñii di waa Real Madrid li di goal average nag moo daal di dox seen diggante fàttali nag Real Madrid moom daal am benn match retard ñu dem ca France 15 championnat euh, ni ki démb Habib Diallo jot naa dugal pour équipe am bii du Strasbourg mujj am ndam ci diggante ak ñi waa Angers ñaari bal naa euh, dugg bi euh, di Rennes Reims plutôt Reims nag mujj am ndam ci digganteem ak ñi di waa Nantes ñetti ci ñaar moom dafa fekk niim ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara Sidi Sarr moom jot naa joué ba match bi yëpp daal di jeex noonu itam ak Moussa Konaté bi nga xamante ni jot naa dugg laata laata match bi di jeex Paris Saint-Germain daal di am ndam diggam ak Lorient ñaari bal euh, ci dara kii di Kylian Mbappé ak euh, Moïse Kine ñoo jot a dugal seen but Idrissa Gana Gueye itam jot naa football googu la jongante geneen doomu Sénégal gu ràññeeku di Pape euh, moom nag dañoo mujj ñàkk sax seen diggante ak Rennes bu Mbaye Niang bi nga xam ne jot naa football ba match bi jeex Pape Gueye moom jot naa dugal tamit bitu Marseille laata ñu koy jox ab carton rouge Alfred Gomis moom ba tey mu nga tëra nda jéewul ndax gaañu gaañu bi nga xam te moo ko tëral dugal euh, ci équipe bam googu li nga xam ne fa la nekk di reen na AS Monaco moom lance da fekk ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci dara Girondin bu Bordeaux daal di ñàkk ci dëkkam digg mag ñi di waa Saint-Étienne ñaari bal ci benn kii di Youssouf Sabaly jot bi jeex ànd ak di Girondin bu Bordeaux Metz moom dafa fekki Montpellier ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara Mamadou Loum moom nag jot na jeu ci équipe bam boobule nga xam te ni moo di Metz Panguet tam jot na football ni ki ndam kii di Pape Yade jot a dugg ci seconde période ànd ak kii di Panguet Lille moom jamono gi moom moo féetee ci place bu njëkk bi ndax dafa daal démb ci déplacement bu mu doon am ci Dijon ñaari balle ci dara Moussa Konaté ak Pape Cheikh Diop ñom ñaar ñëpp jot nañoo football ci équipe bobu li nga xamanteni euh, modi euh, Dijon Olympique Lyonnais mom ci dëkkum dafa daal di match ñu deux buts partout diggante mag ñi di wa Brest na ma leen ko waxé nak euh, ñi nga xamanteni ni ñoo di wa Lille ñom ñoo fété ci place bi njëkk bi daal di am fanwéri poñ ak ñaar Paris Saint-Germain fété ci ñaar place bi di am fanwéri poñ ak ben Lyon moo fété ci ñetteelu place bi ñetteelu place bi nak Olympique bu Marseille mom mo fa daal di féetee championnat bu Italie Juventus de Turin mom demba dañ ko daal di tenir en échec ci dëkkam diggam ak ñii di waa Atalanta bu Bergame un but partout Milan AC moom itam daal def match nul deux buts partout ci digganteem ak ñii di waa Genoa ba tey ñoom ñooy wéy di nekk ci bopp raw gi ñii di waa Milan AC Inter de Milan moom daal di profito euh, ci euh, faux pas boobu nga xam te ne daanaka Milan AC daal dina ko def mujj am ndam ci diggam ak Napoli bu Kalidou Koulibaly benn bal dara kii di Lukaku moom mooy jot di waa Inter bi jeex Munich moom dafa dal di am ndam ci diggante ak ñi waa Wolfsburg ñaari bal ci benn kii di Lewandowski eh, jot na dugal ñaari but. ñu dal di dellu si suñu réew waxtaane ba tey wàllu football ak asak bu ñaambut yëngu si championnat bu senegal ñoom nag eh, ñu ngi doon amal eh, maanaam daal benn préparation ca Gambie di seen première phase de préparation gis nañu nag euh, am nañu ay jafe-jafe ci lu jëm euh, ci deuxième partie bi euh, li nga xamante ne moo di seen préparation ndax ñàkk am jumtukaay bi war maanaam tere bi nga xamante daal dafa la ñuy tàggatoo daanaka daal baaxul kii di Abraham Poulpuy sax moom jot naa teewee seen séance d'entraînement bi nga xamante ne ñu ko doon amal foofu la ci Louga ñu déglu ko. ci stade Wattel terrain boo xam ne dafa bëri suuf la Azac Ndiambour di yeggalee préparation am entraînement wu bés bi nag ñoo ngi liggéey nan la ñu war a dugalee but pour attaquant yi ginnaaw bi nga xam ne liggéey nañ lu bëri jëm ci wàllu défense bi bu ñu nekkee fële ci bi di liggéey yàlla tamit ay relance yu gudd jëm ci wàllu gardien yi. waaw ñu ngi phase avitage moom préparation da koy planifier pour équipe bi mën a xamante. waaye ñaareelu phase u Azac dafa mel ni am na ay jafe am suñu sukkandikoo ci entraîneur club bi midi di Assane Diallo moom nag mu ne lu ko waral la mooy stade Albouri Ndiaye jamono ji dañ ko tëj nag dañuy defaraat terrain bi te tamit club bi mënul fubal ay match xaritoo ndax mesure bi nga xam ne ministre de l'intérieur jël na ko jëm ci wàllub xeex mbas mi. mesure bi ñëw suñ kaw ñu wax tere nañ parce que samedi bi passé nañ waroon football ak Linguère samedi bi ñëw ñu wéeg chef euh, pour équipe région yi la dal parce que Dakar ñi ngi joué mais fii région yi mënuñu ko parce que beneen problème bi ñu rencontré bu ñu ñëwee fii encore amuñu terrain man fekk terrain bi ñu koy defar non neeñ ma pare na mais jotagun ko ñun wala fi ñuy entraîné personnel sama libéraux bi international guinéen loolu daal moo xaw a yàq kii bi tuuti absence match absence terrain coach bi nag ne liggéey bi ñoo ngi koy yeggali ngir mën a génne benn onze de départ laata Azak Ndiambour di football matcham bu njëkk jëm ci wàllu championnat bi am na équipe bu am yaakaar la boo defee population bi sax da nga ko gis il faut ñu confirmer le terrain ren nag mbëbëtu club bi leer na mooy ñu yëg ci podiumu Ligue 1 bu Sénégal tamit Nous le a gagné, ben nous coupe. Euh, mu nekkoon Abraham Paul Puy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul ci lu jëm ci jafe-jafe yooyu nga xamante daal ñu koy dund yenn ci ay stade état bu Sénégal dafa daal di jël dogal daal di defaraat yenn ci ay stade ci yooyu la bokk na ci stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor ni ki tey jii sax daal nañu xam ne ni dina am benn mission d'inspection nga xamante ni eh, dana eh, ay eh, responsable nga xam ne ñu ngi nekk ci ministère de sports ànd ak ay experts chinois yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk sax ngir ñu daal di defaraat stade yi danañ daal di dem bu Ziguinchor laata nag ñuy sóobu ci li nga xamante ne daal moo di liggéey gi buñ fa bawoo nag dañ daal di wutali stade Lamine Gueye bu Kaolack ak itam Elimanel Fall bu Diourbel yooyu yëpp bokk ci stade yi nga xamante daal bëgg nañ kaa defar ngir mën na organiser Coupe d'Afrique euh, ci at yi ñu daal di ñëw ci stade yooyu la jàppaleen sax stade Léopold Sédar Senghor itam daal na bokk ci stade yi ñuy defar buñ ko booleek stade olympique euh, maanaam bu Sénégal nekk fii nii ci Diamniadio hmm. daanaka yëf yi dana gën a yemb Alaaji Asan incha allah incha allah baax na ci nag ndax Sénégal dem ba quart de finale mondial ah toll nañ ci de <laughs> toll nañ ci dem finale euh, coupe d'Afrique ah mi ngi noonu ba pare dem quart de finale coupe du monde ba pare mm. participer coupe du monde bi weesu donc tey tey jii nii ci luñu ci tolluwaay mm-hmm. Sénégal war naa mën a am ay jumtukaay nga xam ne ku fi ñëw dana xam ni fii mm-hmm. réew football la mu ngoog voilà stade bu yaatu wax bu ñu jëlee coupe d'Afrique fa la ñuy feetoo jeex na tax moom la ñuy ñaan <laughs> jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf Guèye RFM rajo askan wi Cheikh Tidiane Diagne ñu koy jaajëfal ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. mag leen di nuyu mbokk yi ñu tambalé ko ak euh, xibaar bu bi génnuk aduna euh, ki di Nordine Sayel nekkoon euh, directeur général centre cinématographique bu Maroc nekkoon itam njiital fondation festival du cinéma africain bu Khouribga niki Dembe, le génn aduna kon Maroc pourtant ñewon na Dakar atum 2018 ci édition bu muju rencontre cinématographique fik yuñ fi doon amal ñëwoon na itam atum 2019 euh, ak atum 2020 bile ci programme ëpp court métrage bu euh, Cinécap ci beneen fànn artistes yi ñom batay ñu ngi mobiliser wu ngir sensibiliser ci Covid 19 bi artistes yu melni deep dundugis OMG mba euh, Mbass euh, jot nañ euh, liggéey ak wa UNICEF ngir dal di ap vidéo bo xamantene ñu ci ñaax ndaw yi waye itam askan wi yëpp ngir ñu wëyal dal li di geste barrière yi ngir ñu mën fa génnee li di jàngoro Umu Kalsum li ñu gis ni kaawu nit ñi mbass mi di laal mi ngi gën di bari UNICEF

inspectrice d'académie bu ndakaaru ñu ngi rafetlu bi la initiative Kadiatou jàlloo mi ngi wax ni campagne bi dafa ñëw ci waxtoom tëjële ak mbas mi gis nañu ni nit ñi bëri ñi ngi faatu fii si Sénégal waaye tamit sax ci àdduna bi yëpp tamit ñu gis ni mbas mi ci wàllum koom am na lu bëri lu mu yàgg waaye nag may fësal sama kontantement bi ñu lëkkaloog artistes yi ngir daal di gën a mën a xeex lii di jàngoroy Covid 19 di ko jaaxale nag ci ay message yu am solo ci wax naka lañuy ñuy ci jangoru ji ak tamit naka lañuy mëna topé bu baax li di geste barrière yi ngir daal di gantal Covid 19. UNICEF moom mi ngi insisté ci volet mobilisation bi ak yeete gi ngir mu gën a yaatu bi la yoon nag dafa tànn ñi nga xam ne ñoo di artistes yi ngir ñu amal campagne de sensibilisation bi. vidéo bi Cokolé Jacinthe Thiandoum lañ ko daal di euh, tourné artiste bi di euh, Dip nga xamante ne teewe na cérémonie de lancement bi mu ngi ñuy leeral moom lan moo waral mu participer ci bi euh, bile projet marché ñu déglu ko ci micro euh, Oumou Kalsoum li kontaante lañ ci am parce que dañu fekk ci ci même xeex bi nga xamné mom lañ nekkoon avant ñom ñuy ñëw donc tay bo nekkee di xeex benn xeex am keneen ko la si bëgg dolel ngeen and xeexandoo ko day gëna yomb té day gëna am doole loolu mo gëna tax ñu sawar ñëw ci xeex bi té du man kese am na yeneen artiste ci bokk feebar bi mu ngi fi ba légui donc moyens yëpp yu ñu am pour mën ko xeex moyens yu bax lay nekk surtout pour xalé yi nga xamante ne ñoom lu ñu comprendre peut-être xëy du bëri ñu koy jajeufal mbokk yi fi la ñuy yem ci sen chronique culture di universelle Universel Pousse comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak savon de Marseille créole. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. ciire ngeen jëf li as góor di dunde yàlla bu ko saay-saay xam gi golof di wax loolee moo am ci médiature de la république médiateur de la république Alioune Badara Cissé moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur ubbil yéenekaay bi ABC ma nga fay wax A ba Z jafe-jafe yi ñuy dund ci médiature de la république kër ga amul benn jumtuwaay bu ko mën a may ngir muy def ab liggéeyam ni mu war moom médiateur de la république it kenn joxu ko woto bu mu di liggéey di véhicule de fonction Alioune Badara Cissé di leeral li mu yore am solo gu mu am solo tax na mayu ko muy toog fenn naan mi ngi jàmbat baa mi ngi xultu wala di joytu ci waxtaan yi mu séq ak wàllu ma nga cay leeralit ne moom Alioune Badara Cissé du ku ñuy xoqatal baa di ko menacé ndax xuux dàq ko ñu dàqante ji ba ci soleil national fekk fa li ñuy dàq mu tëë génn réew mi di coronavirus bi soleil national xamal nañu ne président national bëgg nañu teg ci réew mi yeneen i matuwaay di ay mesures yu yees ngir mën a kar ka corona yi jàllaañoo ci réewum Sénégal moo waral ba ci réactiver centre de yi la ñu jëm mobiliser personnel de santé bi jàppale leen ba ñu gën a sawar ci service d'urgence yeek service réanimation yi ñu gën leen a dooleel lii quotidien nañu li am ci réew mi fan yi ci coronavirus bi moo waral ba président Macky Sall santaane nañu gën a taral mesures yu ñu tekk la sinekaay nañu ba teg ci santaane ñu ubbiwaat centre de traitement yi laatir bi nañu wopp ji dafay bëgg a ëppaati loxo ndax démb rek am nañu ci réew mi téeméeri cas coronavirus ak ñaar fukk mu di lu yéeme corona bi ak coowal deuxième vague gi ñu fi dégg le quotidien nee nañu war naa tax ba kilifay réew mi gën cee jëmbat yitte téeméeri cas ak ñaar fukk ci genn bëccëg juróom-ñett fukki cas communautaire ak juróom ñu ne ñuy dégg ñu cay faatu ak it lim bu takk yoo xam ne seeni borom jàngoro ji da leen a tëral ba ñu nekk sowetaas loolee war naa tax gaa ñi gën cee jaajuwaat sa anki dina kay moom xëy ñu xamal ne ñi yëngu ci wàllu caada ci réew mi di acteur culturel yi jaaju nañu ci fupp ca la ñu nekk maanaam nee nañu lii di coronavirus bi ak lim leen yàqal ak mesure ñu ca teg dafay bëgg a jéggi dayo mi ngi leen di bëgg a rey tey jii ci la ñu woote ab toogaanu ñaxtu fële ca place obélisque njiital association des musiciens Sénégal di Daniel Gomes di leeral ci enquête ne ñoom ñi yëngu ci wàllu culture li leen corona bi xañ mat na téeméeri milliards kenn ci ñoom acteur culturel yi te di waykat bii di Pape Diouf enquête jàpp na ne li ko yëf yi yàqal ci diggante décembre gi ñu nekk ak ci diggu weeru janvier gëla ñu jëm mat na juróom-benn fukki million ak juróom-ñaar ci suñu koppar koppar yi ñu jagleeloon culture beeg presse bi ci fond force covid 19 source mi ngi ñuy xamal ne am na ca ñaari milliards yoo xam ne kenn xamul fan la jaar ministre Abdoulaye Daouda Diallo dégg nañu ko mu ne ci budget 2021 ne da koy jàppale presse urbaine waxam jooje nag journal bi nee nañu ki nga xamante ne ji moom moo di DAGE bu ministère de la culture ak communication ñaari wax yi am na kooro kii di Mamadou Ibra Kane président bu CDEPS di leeral ci suur soi ne ñoom amul benn dërëm boo xam ne jot nañu ko ci fond force Covid 19 bi te li muy wax lu mu xam la ndax mooy président bu CDEPS contrôleur impôt ak domaine bi doon toppandoo signature bu Mame Boye Diao doon ci def ay njuuj njaaj di Babacar Dia ko nee nañu moom ak ñi mu doon àndal ci léexóor yooyu ak njublang yooyu teg nañu leen loxo ba ñoo nga ca kaso ba mu des ku jigéen koo xamante ne ji nday Penda Ñang la tudd moom it ñi ngi koy wër wër gu miti seen nas ndaw la ñu njublang lu toll ci téeméeri million ak juróom-ñett fukk ginnaaw bi ñu ko diggée ne dañu koy jaay ñetti terrain libération moom it di ñu leeralal mbir moomee ni mu demee fa mu jaar ba yegg si fii kii di Babacar fanaan na démb gu démb gu njëkk ca kaso ba yéenekaay bi tegal ñu ci ne bi ñu ko jàppee di sàkku ci moom mu coopéré ngir ñu mën a xam ñaar ñi ñuy wër di Ndeye Penda Ñang la la yéen waa police liggéey leen ko ci mbir moomee ba directeur général bu Mar groupe Imo ba tek nañu ko loxo loxo daratina sen yene kay bi di Vox Populi ñew ak ñun ci kenen ko xamante ji tek nañu ko loxo mudi ben commerçant bu wa service commerce jàpp démb ca yene kay bi nañu ay fowukaay la doon jaay li ci ñuul mooy fowukaay dañu and ak tangal yo xamne lañu ko défaré sangara da ca rax Universel Pousse comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak sen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yi jërëjëf Mamadou Mohamed ñu ngi leen di gërëm yéen it mbokk yi ministre intérieur ak acteur culturel yi seen ndaje démb mi ak gindiku amu ca ñoom acteur culturel yi bëggoon ñu baleen bu spectacle yi ubbiku waat ndax ñu mun a am lu ñu yëngoo ginnaaw bi nga xamante mbas mi gàllankoor na boobaak léegi seen ab liggéey ak métier jëwriñ ji xam leen ni tere yi mëneesu koo yëkki ndax li nga xamante ne mooy jiyee yi mbas mi wéy def ci réew ba tey terewul yooyu acteur culturel aj nañu naam ndaje ak toogaanu ñaxtu bi ñu nasoon tey ci ngoon waaye it ñaar fukk ak ñett ci fan ci weer décembre wi nas nan beneenam ndaje fi léegi ñu ci kon daldi yone kilifa yi fuk def gi di demande ngir kon bobu organisation euh, japp ben commerçant bu doon yëngu ci njaayam ay kay gune yu and ak xetu sangara waral kon ak jappam ak it jaar guñ ko wara a jaarale tay ji ci alxamis ji ci kanamu procureur japp genen gu ñeel ak juroom ben di doomu adama ay doomu senegal yu Mali Burkina Faso euh, bi yon ci walu ngasum burus gu deppowul ak yon waral sen ak japp ci département bu Saraya Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi elage Hadj Assane ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi euh, di leen ñaanal kendalu jamm gërëm bu baax soxna Yacine Pouy bu service digital bu RFM groupe euh, Futur Média ci boppam ci kanam tuuti pencoo géeg rajo bi ñuy waxtaane waat mbas meeg moytu gi bi yoon ci ànd ak i naatango Adja Ramata Dem bu rajo télévision bu Sénégal RTS di euh, yëngu ci émission mbas mi euh, ci wàllu sensibilisation boobaak léegi moo ko toute son équipe ñanga ca macha allah dinañ ci ànd moom ngir wax ak askan wi waaye ànd ak bonne santé RFM Adja Awa mbay Euh, bu xaju Futur Média naka noon it lépp ngir ñaaxeek fàttalante sunu biir ginnaaw deuxième vague bii nu xamul fu mu jëm ak àddina